والقلم وما يسطرون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 بنعمة ربك بمجنون Et c'est une exigence populaire des Pikinois te loolu ci xaalis bi génnee fii mun ngeen ko ca tabax parce que Pikine moom manque d'infrastructure criard la monsieur le premier monsieur le ministre. man nag ma ñëw wax la ne la xamul fu mu yem. taamu leen Tawfekh Production ngir lépp lu jëm. seen wàllu tribunal bi bëgg. je félicite le le le le magistrat qui sorti et invite l'autre mais benn tribunal bi mu am géejawaay jël na ko terre ba géejawaay tribunal ba géejawaay préfecture ba géejawaay sapeur pompier ba géejawaay ñun Pikine 15 milliards. waxoon naa ko keroog. 9 milliards plus 7 milliards égale 17 milliards. Monsieur le ministre de la Justice, 16 16 milliards ba tey bu ma ci yokkee benn mooy bi nga denc ma ma war koo jël ci yow. Monsieur le ministre de la Justice, je vous avais dit que je peux argumenter mon vote damay voter pour la suppression. appelez ça comme vous voulez hein élimination suppression tous les voies mènent à Rome monsieur le ministre xam nga lu tax je viens du département de Pikine là où la construction d'une division d'une division des investigations criminelles est, est nécessaire une grande police ndax li fa xew gis nga ko je rends hommage à mon fils Aziz Dabala décédé récemment des situations très critiques et très nébuleuses pour l'insécurité qui règne dans le département de Pikine ke bii bii bii milliard mën nañ ko cee tabax monsieur le ministre j'argumente mon vote la construction d'une caserne de sapeurs pompiers est très nécessaire dans le département de Pikine et c'est une exigence populaire des Pikinois te loolu ci xaalis bii génnee fii mun ngeen ko cee tabax parce que pekin moom manque d'infrastructure criard la am monsieur le premier monsieur le ministre man nag ma ñëw wax la ne la yow magistrat nga benn tribunal bi ñu am je félicite le le le le le magistrat qui sorti et invite l'autre au travail mais benn tribunal bi mu am géejawaay jël na ko terre ba géejawaay tribunal ba géejawaay préfecture ba géejawaay sapeur pompier ba géejawaay ñun pikin 15 milliards yi 16 milliards yi ñun ñoo ko soxla dama koy vote la suppression dama koy voter ba mu neex. ndax sept ans laa def ci assemblée nationale bi ci tey je n'ai jamais voté le budget du Haut Conseil des collectivités territoriales ni celui du CESE dama koy argumenté dama ne monsieur le pré monsieur le ministre li war mooy li war li warul warul dañu koy nooyal ba mu nooy na nooy ba mel ni xaal ñu waxtaane ko ñun nii ñëpp am nañ lu ñu bëgg waaye li ñu gën a bëgg mooy comme li ñuy wax rek waxtaanee ko ñu ngi koy waxtaanee li tax ñu koy waxtaanee mooy. ñu war leen a bàyyi ñoom ñi ñu fal à 54 pour cent de la des voix de la population ñu doxal lii nag c'est une demande sociale nécessaire évident Sénégal yépp ñoo ne la suppression est évident kon nag nañu leen topp ci seen bëgg-bëgg te bañ a topp sunu bakkan parce que topp sunu bakkan nag mënul paase taxaw fii di def ay blocage yu sew sewaan yu gàtt gàttaan moi je pense que mais collègues députés sont très républicaines très républicaines te lii nii am na ci loo xamante ne duñu ko bañ te danañ ko nangu boo gisee saisi ni mu yaraaxee sax nga xam ne am na ci yoo xamante ni par force dañuy woote maa leen di gërëm di leen sant monsieur le ministre je vous remercie merci